Powered by Jet Multimedia. Allô Tu es prête J'arrive tout de suite. Je me prépare. Ma nouvelle gamme Caroskin contribue à rendre ma peau plus belle. Caroskin, enrichie aux extraits de carottes et la vitamine A, donne à votre teint toute son harmonie. Avec Caroskin, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat. Et ça se voit. En plus, ce sont tellement bon. Caroskin, quand la nature vous rend Un produit Sivop. Nous voulons au Sénégalais de diversité et de pluralité culturelle. Nous voulons aux Sénégalais qui soient en mesure de régler la crise casamançaise. Nous voulons un Sénégal de justice sociale. Nous Sénégal d'éducation des élites d'aujourd'hui et de demain. Je que le problème actuellement du personnel la santé, c'est surtout le statut. Un Sénat où sur les 100 membres, les 65 ont été nommés par décret, sans consulter les populations. Il reste donc 35. Sur les 35, 34 appartiennent au parti au pouvoir. Il reste Le dernier là, eh bien, il a été investi par un parti allié au parti au pouvoir. Alors c'est ce Sénat-là que nous mettons. للسنغال فعل حضن الجمع sabatana taala par muslim koste nabtagtaha jamais maa demoon jëli xaalis mi bi sama wàññi Saly jeex na Yëmbël jeex Parcelles jeex Guédiawaye wuy France France a neex yal na la yàlla defal jàmm te musal la ci cat wala amiin Mesdames, Messieurs, cher Bambadjei, FSDBJ, candidat à la présidentielle de 2012. Je trouve inacceptable juróom fukki at ak ñaar gannaaw bu ñu moomee suñu bopp tey jii nit di dagg bërigo di ko tàllal di ko def tappaat pour mottalee ko këram. ñu laajal ñu Bamba Dieye lan la nar ci Casamance. pour dem Casamance boo jaaree Gambie rek dootoo bëggati dem foofu ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des. ndax Sëriñ Tuubaa dafa xam-xam bi lay avancé mooy bi lay won sa sikk dañoo fooye suñu bopp fooye suñu réew ba tekkeetuñu dara waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziara di dellu si ak yéen seen émission bi ñu leen tàmmal di def saa su ne yowmal jumaa fi kulli yowmal jumaa euh, kii nag nee na euh, dafa am gént goo xam ne da ko jaaxal nee dafa gént moom góor la waaye dafa gént rek daal di ëmb am doom mbir mu jaaxal ko trop muy laaj loolee lan lay tekki ci wàllu gént ëmb bu ñu amee ci góor day teg tale ni xat-xat mi ngi ñëw mën na ko juróo sax xataa mu nekk wéri di yaram mbët bar euh, unk ñett yi may bëgg a wax yëpp min umuri shayatin dafa nekk ci wàllu affaire faru rab la bokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di fàttali rek yéen a ngi ci seen émission horaire bi ñëw bi ngeen ñëw Guet Ndar suñu bànneex la dëkk bi dafa di dëkk bu kom koom-koom ndax dëkk mool la te dëkk la it boo xamante ni daanaka amul lu ñuy wax chômeur. ñun doomu Ndar ñun rek la yàlla may loolu waaye mayu ko keneen daal. kaay leen ñu dem Guet Ndar. mbokk téléspectateurs yi ñoo am mbégte rek dellu si ba tey ci seen émission wareef ci seetu askan wi mu di télévision Futur Média ñu am gan goo xam ne nag Alaaji man fan sam laa du ko présenté yow mi ko jur présenté ko jërëjëf soxna Dégane gan gu nu mas a am sama waay nga ndeysaan waaye sama doom ne tey laa mas a jàkkaarloog moom macha allah macha allah ndax waajuram ndeysaan am na 37 ans macha allah maa ngi moom ak Alpha Bambado dëgg la muy Alaaji Ibra Samb ndaa naan lu kenn dut laaj dëgg la xam nga diggante dama la ni ndey ci la. Hmm. i bëri doo géewalu tëkkat kawlax am na ñu ko jiitu am ñu ko fa jàngal. dëkk la waaye coroon ay tànkam yombul. dëkk la ñaani waajurum la woon. toujours na da ngay jël sa deret jur sa bopp. lama labat di waajurum wu jigéen moom mii. Hmm. ca yooyu jamono ni Ibba Samba meloon. Hmm. jigéen ju nëtt jur lu baax ëllëg doo ko dikku. waaye am da ne woon dégg rek. xam ne am soo lu mu way way way way way ku dund ci dem mbaag ruuxu dëgg la ba kii gën a àddina Papa Njaay coppet ji euh, waxu olof la waaye Papa Njaay cofeer ci ay waajur ba mu ñaani waajur mooy indi coppet macha allah déggoo sama wax ah, allah <laughs> li mu dëng ma nag li mu def mm. jikkoo ma ngi si dëgg la waaye bëggul allah ji ba sàmm gën ko damay toolub xëy amoon na fi. dëgg la waaye buggoon gonte ko daan noppaloo. dëgg waaye ju loolu lañ daan def. dëgg la papa Ndiaye day ngeen sa baay wital nag toolam ngoon ndax ëllëg mu ne ko bàyyi lu tax mu ne ko daa bëgg bu soxla ñëwee nga faj ko bu sama soxla ñëwee nga faj ko. léeg-léeg doom nag tuumaal ndeyam. Hmm. jigéen day dee ci kër say ba dee. dëgg doom ja màgg te du tekki. ñii ndeyam ko fi liggéey déedéet doom ja gontul ku ne am lépp cër. dëgg la yàlla baaxe ko muy aar bi mu ne. fexe na ba aar boppam aar ay bokkam aar ay waajuram aar ay maasam am personnalité am xam yoonu muy jaar nekkul ciw ñàll bëggu tëggalam fu mu jaar demub dëkk. macha allah macha allah macha allah kon suñu invité dégg ngeen noonu papaam di ko présenté ndax moo ko jur Pape Ndiaye Coppet ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dala jàmm ci télévision Futur Média ci émission bi wareef kon nuyul askan wi. ah jërëjëf maa ngi nuyu askan wi yëpp. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy ñaari waajur sant suñu sëriñ sëriñ Saaliw Mbàkke sangub Seex Béthio Thioune damaa am mbégte lool mhm. xaj na sax ma ñëw ci plateau bi nii mhm. di wax day jafe ndax sam papa Njaay Lo mi mook sam papa la woon démb waaye loolu rek doyut li tax ma naw ko mhm. damaa xam ne lii muy def nii maanaam dafa am xam-xam xam-xam xam nag dafa bari façon mm-hmm. am na xam-xam boo xam ne suñ borom moo koy def ci dënn ku mu neex mm-hmm. du ku mu neex rek nga wax mm-hmm. te li ngay wax di jaar yoon dëgg la du lu ñuy jàng loolu lu suñ borom di dogal ci nit la dëgg te it képp koo xam ne maanaam suñu borom may na la xol boo xam ne xol bu set nga di ko nangu la kon nag moom ni ma nangoo baayo man noonu laa kontaanee ci baayoo ko moom macha allah macha allah macha allah ndax njaay loo mooy sa baay la lool rek ndam la dëgg la la kon nag damay sant yàlla ci bi ma booleeg bàyyi ju mel nii alhamdulilah yow nag moom mm. da ngay référence mm. ndax dafa am mbir yoo xam ne nit bu ko ñimee jël ay responsabilité am di ko wax mooy maanaam ku dëggu mm. te dëggu rek am solo yow jigéen ñëpp war na roy ci yow maanaam nit boo sañsee ba mu rafet war ngaa fexe maanaam ba sa jikko rafet yow li ngay wax nii yëpp rek maanaam sa jikko la say jikko moom ngay tas nii fi mu toll nii mën nag kenn du ko wax mhm. waaye yow exemple nga ndax man may déglu say tem tem yoo xam ne maanaam nit ki bu dëgguwul du ci ñi ma dugg kon nag yow yal na la yàlla may gudd fan ak wér ak mboolem ku la supporté rek amiin amiin man tey pour ñëw wax dafay xaw a diis ndax maanaam dama fekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla man dama nangu maanaam seen xam-xam ndax yonent bi jikko la ko yàlla taggee kon maanaam yow sa jikko laa tagg li nga sañse nag moom moo moo fukk Sénégal <laughs> waaye rawul tey li nga indil de de barki démb Awa Ndiaye nee na ma ah. man daal man taa ah. déggéen li takk yi muy takk xaw ma ko koy takkal <laughs> ñu ngi koy nuyu. waaw ñu ngi nuyu aw bu baax. kon nag maa ngi maa ngi nuyoo di nuyoo ñi nga xam ne ñooy seetaan wareef. di nuyu Sénégal gépp rek. di nuyu tamit borom kër gi. wallaay wallaay Youssou maa jigéen sama grand. dëgg la waaw kontaan nañu. kontaan nañu xam du ni mën a. waaye fu mu neex bu ko neexee ni maa ngi. dëgg la. man a bàkku la. waaye maa ngi nag rawe la. dëgg la. lu yàgg dëgg la. Mhm. dañ ko ne Lat Joor Ngoone la ci doomi Saaxeer Fatma Amadou mu xorje bala ngaan loo bokk tubaab bii mun na ànd ak yàgg doy na bokk sañ ci nekkul mi ngi ci xol yi nag boo xoolee ci jigéen muy dem bu laaj ci jikkum rafet la bankal sa baaraam dox bu teey xam nga fi ngay yokki sa tànk boobu ëllëgee doo lakk bankal wax ndànk teggi na ko róof fu mu jaar ko sankal yegg ak gàmm tu xuloo du am dañuy sëriñ tubaa doom ju baax nu ndeyam di bindoo mm. mu ne wax ji du bari tànk ba du gudd te du ràññu ko boo ko dégloo kàddoom te roofoowu leen doo ko mën a sax gëm mm. boo gëmul yàlla dëgg la waaye waat naa ci jëmmi sëriñ tubaa mm-hmm. man mi mu nekkal les no deux cent waxuma nag bi naawee ci avion bi seeti ngeen ji mindéer sallallahu alayhi wa sallam mu contrôle ko mm-hmm. ndax nekkal man yombul mm-hmm. damay testé di dugg xalwa di listixaar daw ma xam-xam waaye boo génn wax résultat waaye biir na ma ni li muy wax jikko la joo xam ne ji boo ko weddee laajal àllaaji baabu mu ne su ko ndax xam nay diplôme te ba jàng-jànge daa jàng te jëkkwul ci moom waaye dama la ne wenn xal daal su ma ne taalub dëkk boo ca amee asxal téyel. alaaj dafa baax alaaj dafa baax Pape nañu kontaan nañu yàgg leen fi téwél dañu yëkkati tam naan kañaan fànkul muur yàlla ay maye mu nekk mbir moo xamante ne ne dafa xew kañaanante bi dogante bi roofante bi gorante bi ah suulante bi ci bàmmeel te nit ñi dañuy suul te ñuy dund xam nga ah lu lu yéeme nit ñi dañu mel ni euh, te fañ ko dul woon séentu léegi fa la xawee mi ngi ci askan yi ah mi ngi ci gaño mu ngi ci meen ah rawatina ni mu rawee ci su lawee ci société bi kañaan fànkul mu pap lan nga ñu mu ciy wax balaa ñuy déglu sa extrait waaw ki iñaan nag moom dafa nekk loo xam ne comme ni nga ko waxee rek nit ki koy def sax dama naan gëmul yàlla ndax ki ngay iñaane ba tax mu tax laa dugg foo manti xalaat rek ba dugg fa mm. ba xañ ko àdduna wala nga xañ ko sax liggéey ba mu ba mu nekkoon mm-hmm. yow du tax nga jot ca liggéey boobu déedéet ndax Sëriñ Tuubaa dafa am lum mu doon wax mm-hmm. danaan lu ma yekk ci ndab lu tilim dëgg la ndab lu tilim nag mm-hmm. mooy maanaam xool bi nga xam ne maanaam setut dëgg la bu yeboo nga dàq julli bu yeboo nga dàq tari alxuraan bu yeboo nga tàq dàq dem màkka li yàlla soxla mooy maanaam moom ab xol. xol ba yàlla du fanaan ci jàkka yi. dëgg la waaye dina fanaan nag ci xol doomu adama bu set. dëgg la xol doomu aadama bu set ku yor bu gisee nit mu sañse sax day mel ni moo sañ sa day kontaan parce que koy fàttali boppam. dëgg la. bu gisee suñu borom may nit man boo déggee may wax naan bàyyi bàyyi njaay loowu mm. nangul ko xam-xam bi leer na ma ne am na ñoo xam ne. du leen neex. déedéet déedéet chaque jour ñu ngi jiingat. ñu ngi diingat dëgg la du fi ay. du leen neex waaye nag dañ naan kañaan fonkul muur yàlla yàllaay may. dëgg la da nangul sunu bo loolu da sunu borom. loolu lañ naan sant yàlla xam nga sant yàlla yemul ci alhamdulilah. déedéet sant yàlla mooy xool li mu def ci jaam nga nangu ko loolu mooy sant. dëgg la moom nag suñu borom defal ko loolu muy wax. Hmm. mu leer ni maanaam lii dafa waroon di laaj ay répétition hmm. wala toog di tëju naan suba la ban lan laa war a wax ci thème bi dëgg la wallaay wallaay nga xam ne maanaam day mel ni ikam day génn dëgg la day génn li muy wax day génn te bu ci jaaree dootu ci de lool maanaam suñ borom moo koy def loolu munoo ko iñaane tey boo doon boo ko doon takk ak loo manti def du tee maanaam saa yu ñëwee muy gën di sax wallaay wallaay macha allah wallaay macha allah yow maanaam li suñ borom def ci yow nga xam ne tey boo taxawoon di ko wax am na ñoo xam ne sax dañuy dingat waaye ki nga xam ne maanaam xolam set na bu toogee fa la jàkkaarloo ak yow ci télé bu la jàkkaarloo dina xam ne maanaam kii li muy wax dëgg la ku iñaan nag moom mm, yooyu yëpp doo dana du da du am temps wu ràññeet la ko dëgg te nit ku ci nekk mm. dangaa am adversaire dëgg la comme li ñuy jàpp ne man de artiste bi mooy sama adversaire mm. taasukat bi wala woykat bi wala tëggkat bi non non yow da am sa adversaire bopp mooy say jikko. Mhm. boo xeexeeg sa kiñaan gi. xeex ak sa rëy gi. dëgg ak sa bëgg tur wi. dëgg la. xeex xeex ak buggoo kenn am ndam. Mhm. bu ko defee ba ba leen. Mhm. suñ borom yakkal la. dëgg la boo déggee Sëriñ Tuubaa du ma yakkal nit du ma yakkal kenn ci bool bu tilim loolu maanaam mooy li nga xam ne. mooy bool bu tilim bi nga xam ne maanaam seek yaa ngi ko yor hmm. munoo am cëru yàlla dëgg la di am nag ma seytaan nag mën lay jay dëgg la ngay am waaye dañu xool sa mujj dëgg la waaye li am solo mooy nga xeex ak sa adversaire yi nga xam ne sa saa yoo tegee sa tànk bi ci hmm. ñu ngi xeex ak yow mooy mooy kiñaan hmm. rëy ngistal dëgg la dëgg la kiñaan nag kiñaan mooy ndayu loolu lépp dëgg la parce que boo xasee ba ñaan moo la indi ci rëy dëgg moo lay indi ci nay mm. moo lay indi ci naw sa jëf loolu lépp iñaan moo ko moo moo koy jur dëgg la ngeen indi thème boo xam ne nag mm. thème bu riis la boo xam ne fi mu toll nii société bi yëpp fi mu toll nii garab gi li ñuy wër yëpp dëgg la fi mu toll nii garab gaa ngi nii tey da ngeen ñëw ci thème boo xam ne ñëpp a ko soxla dëgg la dëgg la dafa xew ilimaani waaraate nan mm. police dañoo jàpp ba sonn gaa yi sang na noo sang sang sang sang ba ba ba bëgg a dee sëriñ si mm, mm. waaye li nga xam ne nag moom lañ sangul maay mooy xol yi mm-hmm. ki ñaan googu nag moo tax fi mu toll nii di nga gis mm. nit koo xam day xëy ba bëccëg di liggéey mën a sonn lool fajar teel lay yow mais boo boo lambee poos doo ci gis dërëm parce que ndab la moo setu te suñ borom du du ci di ala kulli xaal waaw ndax suñ borom day xam ne bu yoree fa mu koy jëmale du baax dëgg la ndax bu yoree da ciy lor nit ñi rek te suñ borom moom moom nit dëgg la dëgg mu xañ ko ko am koo xam ne maanaam mm. fa mu toog fa lay toog mm. waaye fa mu toog maanaam suñ borom da koy teral ku ko gis bëgg ko mm. ku ko gis yéene ko ndax su amee ñëpp am ndax ku bu amee ñëpp am te foofu mu topp la koy lépp di fekk te du fa génn loolu li ko waral maanaam mooy xol bu set kon nag ki ñaan mooy li nga xam ne ñun moom lañ war a xeexal fi man day man moom la moom mooy li nga xam ne dëgg la ah man bu ma naan sama rival mm. man jikko samay jikko mooy sama rival li li liñ naan toog toog sa ruq mën a kan ak ka baax toog ba ci yàgg nga xam ne kenn du la wax mais mm. nag nit suñu borom bi mu ko bindee daf ko bind ak ay jikko baay jaay loo nga nga inspecté sa bopp. waaw alaaji doomu adama day inspecté boppam. waaw barke gis mu wala bul la. waaw duwaañ am na ci yoon waaye na fex ba mu kayit balaa dem ci duwaañ. dëgg la jeex na jeex na lii la. maanaam jikko yooyu. Mm. jikko yooyu di nekk ci nit. Mm. nga xam ne boo toogee. Mm. li naan loo xam ma dem ma dem a gën laa xam boppam. boo toogee ci boo toogee sa biir nekk di nga xam ndax man ñaan naa. di nga xam ndax man rëy na di nga xam ne man soof na yooyu yëpp da nga koy xam mais nag yow ci ngay ci di ngay toogee noonu mm. yow yaay xool man naka lay man def pour liteeg li nga xam ne man tey bu ëllëgee mm. moo man nara yóbbu sawara ki mm, ñaan kenn du ko def dem àjjana ki ñaan dëgg la sa àdduna du neex sa ëllëg du neex dëgg la ci suul ak suli ngay dëkk waaw suul ak suli suli bu la fekk xaas boo yor di ko yóbbu ci sëriñ si waaw te doo noppalu ndax yàlla dafa bëri mbër da ngay dem ba xeex ak diw ba ne ba jël sa àdduna sa alal yépp def ko ci kii ngir ngir kooku daanu fay yàlla indil la koo xam ne moo gën a garaaw kooku mu yëkkati keneen <laughs> fekk say koppar yépp jeex nga nekkaat ci nag beneen ngay souffrir dëgg la nekk ci beneen combat nekk ci beneen combat <laughs> saa yoo daane lee mbër yàlla di la jay indilaat la beneen mbër boo xam ne doo doo ci mën dara <laughs> am na lu am solo loo xam ne wax ngeen ko ci. Mm-hmm. damay laaj Lansana suñu réalisateur mm-hmm. suñu mënee indil extrait clip bi mm-hmm. nga wax ñu lu tax loolu jug parce que li nga wax am na solo laaj li ñuy wax doomu mbir jàngil bëree gis nga sa doom. macha allah macha allah macha suñ ko waxee aareen taxul. lii moo tax jotaay yi fuñ la làngalee nga dem macha allah macha allah kon na extrait.